asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi mardi 24 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay yi li ñu indil ñu dikkaat ak yéen si plateau JDA bi mardi 24 août 2021 dañuy ñëw ak suñu yëglikaay suñu làmbal ni xëy doora ko yëglikaay bi di suñu làmb nag tey xëtamu njëkk moom këm ci xëy fésal maanaam mooy troisième tigre de Fass ñu naan ko Gris Bordeaux bu écrit Fass ak Ndakaaru Gris Bordeaux nag lañ ñu ci fa aw photo Gris nga yéttee ay sengoram di tuus am tuusam yëglikaay ba nag xëy tey toppal ñu ko ca xalem ba tey fi nga xam ne fi la toll ci làmb wala ci carrière am yëglikaay bi nag nee na xale boo xam ne bu trible am maanaam boo xam ne daal trible la defoon lool lool lool moom da Gris Bordeaux doonoon ca ba nga xam ni nekkoon na xale waaye itam ku bëggoon lekk la rawatina nag lu jëm ci wàllum ay yenn ñam yi yëglikaay bi xëy na tey daal toppal ñu Gris doo waaye tamit daa mel ni Gris Bordeaux papam wala way juróom bu góor mbër la woon boo xam ne daal daan na bëre ca ay jamono fa nga xam ne moo doon seen dëkk ca ci ki laata moo ñu koy yóbbu fa nga xam ne moo di ca daara ja moom Gris Bordeaux tamit maanaam tribalam googee yëglikaay bi am na koo xam ne moo ngay wax na na tamit maanaam même ba mu duggee néegu góor tolleek muy am juróom-ñetti tamit Gris Bordeaux nekkoon na koo xam ne daal ku naqari woon na rek la la ndax nag bëri ay yëngu-yëngu yëglikaay daal tey xëy nañu toppal troisième tigre de Fass ba muy koo xam ne daal fi mu jaar ba fi mu yegg sa tey yëglikaay bi topp na ko dina ko wax benn par benn mel ni ki nag victoire ba nga xam ne nag moo ko yóbbu ca kaw ñépp nangul ko ak champion nag mooy diggante mag Antoine baaxum ba nga xam ne jël bu rëy ba mu ko danoo fa nga xam ne moo doon ca stade Iba Mar Diop yëglikaay bi ne nag bés booba moom ba ca giri jógee ca la ñépp nangu ne kii nag mbër la te itam nag moo war a donn Mbaye Guèye ak Moustapha Guèye yëglikaay ba xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu donn moo tax yëglikaay bi ne na moom nag mooy benn mbër boo xam ne daal wala moom mooy tigre goo xam ne ni moom la ñu nommé wala boog moom la ñu intronisé officiellement àddina bi yëpp toog fa nga xam ne mu doon ca estate Demba Diop yëglikaay ba daal tey giri la xëy toppal ñu ko keneen koo xam ne ni moom maanaam mu nga xëy di wax muy Boy Niang numéro deux mel ni ki nag yëglikaay ba xëy na tey daal andil ñu ay waxi Boy Niang mel ni ki nag autorité ya ñi jiite réew mi daal Boy Niang ne na leen dey li ngeen doxale ci mbirum làmb ji nekkul loo xam ne lu aw yoon la parce que nag Boy Niang daa jàpp ne la ñu waroon def moo doon jéem a sauver làmb ji ba saison bi jeex ne na moo gënoon lii ñu def ndax ne na lii ñu def gisu ci lenn loo xam ne lu am njariñ la moo tax nag mu jàpp la leen waroon moo daal ñu jéem bi parce que ñoom ñu ci ku ci nekk di mbër jëloon nga avance ab jàmbur façon yéenee bëre préparé wu ba pare taxaw takk di xaar bés jot ñu soufflé sa combat nga bëre làmb ja jeex ñu xëy xëy rek daal di dakkal làmb ja te itam laaj ñu avis wu kenn moo tax Boy Niang leen waroon ngeen a a bàyyi saison bi dem ba jeexal boppam yëglikaay ba yemu ca wala Boy Niang yemu ca ñëw na tamit ci ña nga xam ne dañuy wax ne la ko motiver ci koomam ak tafaatin mooy digganteem ak Balla Gaye Boy Niang ne leen déeréet tafaatin damaa jël avance am ñu war a bëre laataa may jël bu Balla gay ne na kon la ma motiver sama diggante ak moom moo di bëre ak moom daan ko loola mooy sama motivation ndax daan tafaatin am na lu may yokkal waaye ne na moom nekkul ne na ma war a bëri ak Balla Gaye mooy motivation ba booy ñag ne ku koy xalaat sax yaa ngi nax sa bopp la ma jàpp daal mooy combat nu boole mag ka nga xam ne moo di Balla Gaye yeggagun ca waaye tafaatin moom la ma motive mooy ma lekk avance am te itam daan ko kese laa fas yéenee def yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci moom ci lambam ak itam bokk na ci moom Lac de Guiers numéro 2 la tax mu naqaree daan daal maanaam mbër la moo xam ne wàllum bagaar da koy def day xeex te mystique tamit yàlla dimbali na ko am na ko ba mu doy sëkk te itam mbër la boo xam ne défensivement itam da cay liggéey maanaam daal nekkul koo xam ne da ngay ñëw song ko rek benn way daan ko mu jeex ne nañ Lac de Guiers moom ku bëgg ci moom loolu dina jafe ci yow lool la yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko ci aw foto mu nga dëkkoo ab ab laytan toog ca cumukaayam moom Lac de Guiers numéro 2 keneen xam ne ni bëri na ak Lac de Guiers ba Lac de Guiers 2 mu ko mu Yékini Junior yëglikaay bi lam nu xamal daal nee na boo bëggee dégg daal moom Yékini Junior daal fi mu nekk nii ah maanaam daal adversaire daal lay chercher maanaam moom lay wër yëglikaay ba nag ñëw na ci Yékini Senior ak la nga xam ne am na ko ci ay ndam mu toll ci quinze victoire ak six défaites yëglikaay baa xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne ni moom ren ab saison dafa doxut muy Boy Faye ndax la mu jot a gagné lenn kese la muy drapeau chef de l'état bën ca jógee ba tey amut benn galaa boo xam ne Boy Faye gagné na ko moo tax yëglikaay bi jàpp ne saison Boy Faye ren moom saful suukar saful xorom maanaam demul cëng dikkul mbay laar Boy kenn xamul ren la mu saf ay mbiram kenn koo xam ne ni moom ab reporter la nekk ci làmb ji ñu naan ko jili kebe mu nekk fa nga xam ne moo di wasaare yëglikaay ba nag moo xëy tey dalal ko ci rubrique ba ñuy wax Leewtoo jili nag moom combat bu ko gën a marqué la xëy di ko wax ne na Petit booy moo ko gën a marqué ak BMW combat ba nag ñu ngi ko bëree woon fa nga xam ne moo doon ca esa ñoom Iba Mar Diop yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikk dina wax lu mel ni ki noonu bu ñu demee ca tuuse tamit lan fay fekk mel ni ki nag les jeunes leaders daal solo nañ seen ay dàll dem jaale ji ka nga xam ne moo di Moustapha Guèye mag ja di mbay Guèye ka leen jiite woon nag di seen président di ka nga xam ne moo di mobile ak mbër ya nga xam ne ñoom la àndaloon ñoom Mori Kargoob ñoom Ondo la Fou ñoom Agogo ñoom Uña ak ñoom ña nga xam ne nii daal maanaam daal ñoom ñëpp àndoon nañu dem jaale ji ka nga xam ne moom moo di Tafa Gueye ka nga xam ne nag moom moo di Balla Diouf nañ daal enveloppe ba ñu jox ka nga xam ne mu Tapha Gueye Balla Diouf moo ko jël jox ko ko mel ni que nag Tapha Gueye tamit maanaam dalal na leen itam maanaam loola neex ko trop trop trop yëglikaay baa xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag yëglikaay bi maanaam bu ñu fa jógee foofa sunu làmb les arènes moom moo loo leenu xëy tey wan musalab costume am taxaw ak Gaston Mbengue ñoom ñaari ñépp nag ku ca ne yaa ngay muñ maana boog yaa ngay suri sa kanam daal naataange lan cay gis waaye yëglikaay bi nag li am ba des mooy moo loo daal boo bëggee dégg dëgg Meng wër na ko ndomb ndax nag la tax mu wër ko ndomb maanaam adversaire yi nga xam ne ñoom la Modou Lo waroon bëril yépp ku ci ne fi mu nekk nii contrat wu Gaston Mbengue yaa ngi ko yore moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne daal soo bëggee dégg-dégg daal moom mi nga xam ne moo di Modou Lo day wër ndomb la ko Gaston Mbengue def yëglikaay bi yemu ca adversaire yi Modou Lo yooyu muy Balla Gaye 2 di Bombardier yëglikaay bi na ñoom ñaar maanaam daal les arènes moo xëy toppal ñu leen de nee na soo bëggee dégg-dëgg kii nga xam ne nii daal moom moo di Balla Gaye numéro 2 moom bu dee mag ña moo leen dominé daan leen yëglikaay bi wan ñu ko ci aw photo na muy daane Yékini waaye bu dee Bombardier ma nga xam ne moom la war a bëri tamit moom tamit daa mel ni xale ndax ku ne xam na ne moom Balla Gaye 2 Bombardier da koo daan daan Modou Lo yëglikaay bi tamit wan nu foto wu mel ni ki noonu ñaar ñoo xam ne moo ci lutte olympique ak yu mel ni ki noonu ca la ñuy yëngut Mbuutu moom muy Adama Diatta ak Isabel Samb yëglikaay bi na nag seenu dem retraite fi mu nekk nii nag roi ba ak reine ba ñan ñooy jël seen ay place loolu mooy laaj ba nga xam ne moom la ñu samp am rois ma nga xam ne nag moom maanaam def na lu mel ni ki noona maanaam nit olympique ak yu mel ni ki noonu daal nee na ngir donnu leen ñaar ñooñ lu jafe-jafe lay doon yëglikaay bi moo xëy tey dikk di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di les arènes tamit maanaam ñëw na ci bref da l'arène ya daal mu nu xëy di nu xam ne daal ne nu yëkk Yékini senior daal maanaam fi mu nekk nii daal maanaam di combats yi nga xam ne boog wala boog di ans yi nu génn combats yi yëglekaay ba tànn ni yi ci gën a tàng te boole wu koon ca bosam diggante mag mu doon ta Yékini senior maanaam yëglekaay bi ne nañu mu ngay réclamer maanaam combat mag ka nga xam ne nii moo di Modou Anta ñu dugal ko ca ndax combat ba itam gis combat bu ko dàq gën ko metti jafe na lool ba yegg ca lool yëglekaay ba moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci les arènes mu ngi nuy xëy di nu xamal ne daal maanaam Tafa Gueye daal ma nga xam ne nii moom mooy deuxième tigre de Fass fii nekk nii nag moom mooy parrain d'honneur association des jeunes lutteurs ginnaaw nag ba ñu demee jaale ko ca këram ka nga xam ne moo di magam mbay géey yemuñu ca ne nañ ko nag léegi daal yow yaay sunu parrain d'honneur loolu les jeunes lutteurs ñoo ko def ak ña nga xam ne nii ñoo leen jiite muy ñoom mobile ma nga xam ne ñoom ñoo àndoon dem jaale ji ko bu nu continuer dem ca lambi simple ja ka nga xam ne moom moo di ngoon def fay daal ren tamit am saison des naa dox ndax benn drapo la gagné benn final am ca six cent vingt mille francs yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki nag saison daal ren soo bëggee dégg-dëgg moom ngoon def fay daal ren moom dox defoo ko dara dara dara jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la ku ci nekk tey fi nga ñëw ci sa xat wu njëkk ak la nga xam ne ni moom nga nu xëy tey wan ñu ko muy li gën a fees mel ni kii 100 pour cent làmb lay doon waaye li ma leen di wax rek dama leen di nuyu saa su nekk rek yéen téléspectateurs yi amuñu seen fay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen parce que rek bu dul yéen du di ndax yéen ay seetaan di commenter di bind di jubbanti di wax seen mbégte bu ngeen gisee lu dëng ngeen signalé ñu ko te loolu lépp dafa ama am solo lépp lu mu ci mën a doon rek ñu ngi ciy bàyyi xel saa su nekk parce que ay nit la ñu comme lu ñuy wax matuñu te à tout moment rek dañuy bëgg wala chaque instant rek ku ñu naan nii la nee la di ñu jubbante ngir ñuy mën a jaar ci yoon wu gën wi léegi nag comme ni ma leen ko waxee tey mardi la ah ñu ngi le vingt août 2021 sunu làmba tey Gris Bordeaux la xëy tey ñëw toppal ñu ko gis ngeen ko noonu ci xëtam mu njëkk Gris Bordeaux bu tee sangooram sotte comme soowam wàcc di tuus lii boo ko gisee xam nga ne aar ngay gis cosaan ngay gis lii bu ko defee ah ba waa Fass ak Ndakaaru dar ko bàyyi dem ba fëgg ndënd yi mu tuus ah, loolu benn affaire la moom nag lañ ñu won tey ci xët wu njëkku yëglikaay bi yëglikaay bi nag lam ñu ko wane mooy giri la topp ca xale ba fi mu toll tey muy xale boo xam ne xale la woon boo xam ne daal comme niñ ko yëglikaay bi waxee hein, un enfant hein, tribal gourmand agrodi lézard et di couscous waaw ay ay affaire yooyu daay bëggoon na ko ay cere lézard nag laa xamul xam ma ay mbëtt la xawma daal waa daa benn yooyu yooyu yëpp daal ay bëgg-bëggam la woon Gris Bordeaux xale bu doyan waar tribal woon yëglikaay bi tamit ne nañ papaam way juróom bu góor laataa moo dem ca daara ja ci li ñu gëstu ñoom yëglikaay bi maanaam mbër la woon kon Gris làmb ji dakaa donn si deret ñu juróom bu góor yàlla na ko yàlla jigal te xaare ko aljana waaye tamit ñun ci li ñu xam ci moom muy lu leer moom xam nañ ne jànglekatu alxuraan la woon di woon nekkoon alim nekkoon fii ci Medina doon jiite jàkkaay cëriñ nekkoon imam ba hmm? te yefe naa itam alxuraan jooju ay doom yëpp boo leen toppee ku ci ne da ngay gis ci moom loolu waaw muy moom giri mi muy giri ak jigéen ñi ñoom ñëpp waaw mu mel ni xale la woon boo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ci ba mu ba mu soleem mbubam góor ce à l'âge de huit ans juróom-ñetti at ne kon ku tribuloon ku ku ku ku yéeme woon daal mel ni kii giri daal kon xale comme li ma waxoon démb rek laay waxaat xale boo gis mu jóg rek am na yoon xam ne bu ci awee di nga xam ne kii ëllëg mën na nekk quelqu'un te defe naa loolu mu xëy tey am ci Gris Bordeaux parce que tamit yaakaar naa ne bi mu duggee ci làmb nekk un sportif ku ne gis na ne ñi ko encadré ak écrit bi mu nekk muy Fass du écrit bu ndaw nekk ba mu fay dugg tamit nekkul dafa yomboon ci ma parce que ay mbër fa fekkoon ay moromam ñàkkul sax ñu ko fa dàqoon bëre wala ñu ko fëppoon tour mais moom fexe na percé liggéey ñàkkante ba nekk tey li mu doon ba tey taxawee palaasu Mbaye Guèye yal na ko yàlla yar ak palaasu Moustapha Guèye mi fi nekk ah kon loolu nag liggéey a koy maye kon ça veut dire que liggéey na carrière am ba nekk tey li mu doon moom Gris Bordeaux yemuñu ca yëglikaay bi tamit mu ngi ñuy xamal ne soo bëggee dégg dëgg maanaam lamb ji ko taal ji ko taal dëgg dëgg dëgg dëgg mooy digganteem ak Antoine Bakhoum effectivement defe naa kera stade Iba Mar Diop la ñu bëree du stade Diop ba de ca essat Gazon ba la ñu bëree ñax ma fa la ñu bëree kera bi mu daanee Antoine baaxum kera dëkk bi yëngu woon na ndax ñu bëri dañ ne woon giri mii bi mu jëlee Antoine day xaru ndax boobu Antoine Bakhoum moo topp ci Yaxya Diop Yékini nekk mburum séréer mu naqaree daan lit simple bi mu yàq mu mu mu mu mu yëngal ko daan sama ñoo fa new ñu ñëw ci leen affaire frappe bi kenn mënu koo daan diggante mag gosokaay yi nañ koy fàttaliku moom Antoine Baaxum mais kere bi ko gëri di tël di ko daan ah loolu loolu doyoon waar la moom ci jógee nag nañ giri boro fa la carrière tàkk effectivement loolu moo taal carrière u giri diggante mag Baaxum ku topp làmb ja xool jamono jooju fi làmb tolloon ak giri boro fi mu tolloon ak ki mu daan jamonoñ ki mu doonoon fa la jógee nag ñu ne nag kii mbër la effectivement mu confirmé ci làmbam commencé nag di jël di ya am yenn adversaires yi kon loolu moo lay won ne làmb tamit am na fu nga xam ne boo ci tollu da ngay liggéey rek am na bés yoo xam ne bés bu ñëwee boo ko exploité ba maanaam boo ko exploité ba gagné ko loolu moo lay def un vrai champion te mbër mbër yu mag yépp ku ci ne dund nga bés yooyu nag ku ci nekk da ngaa dund bés yooyu am nga bés boo xam ne dañ ne woon tey doo ci génn ku ne yaa ngi fàttaliku Balla Gaye 2 bi ko nit ñi nangul donte teglante woon si 2005 bi mu ñëwee di bëre ay petit combat bi mu amee premier grand combat di ngeen ne woon fu muy jaar maam góor mu daan ko nit ñi xam ne kon kii mbër la loolu day am waaw parce que da ngay jël lu nga xam dañ naan est ci génn git loolu moo ko dal si Antoine Bakhoum hmm? waaye tamit moom mooy seul tigre de Fass boo xam dañ ko nomi dañ ko nominé officiellement man ma la boog dañ ko intronisé officiellement loolu amee woon stade Demba Diop keroog defe naa ne ndakaaru yëpp ngi fa woon mbokkam yëpp nga fa woon Sénégal yëpp ñu bare nga fa woon mu nekkoon événement bu rëy rëy rëy loolu tamit defe naa ne tey loolu bañ ko koy defal tam yaakaar naa ne defaluñ ko ko ngir yaama neex mais lu mu wane woon la ci biir écurie Fass ba tax ñu defal ko loolu kon loolu ma loolu tamit yoona macha allah passage bi daal am na solo ba tey bu nu continuer ah photo bu ngeen di gis Boy Niang numéro 2 la moom tamit gis ngeen ko fan yi ci benn émission ci 2STV yaakaar naa Bantamba TV la waaw wala boog émission bantamba daal dem na fa suñu papa Bekay Mbaye yaakaar naa moo ko dalaloon euh, moom mu ngi wax état bi ni mu arrêté làmb ji la jàpp ne loolu mënoon na ñàkk effectivement wax na dëgg ni ñu xëyee xëyee xëy rek coupé làmb ji te coupé bi du arrêté ministériel du décret bu jógee présidence ah ci président ci président de la république ah doy nawaar waaye xëy nañ un rek. promoteur war a tëgg ñu ne ko dootoo tëgg parce que problème de sécurité la te promoteur bi di xale buy doog ñëw ci làmb ma leen di nuyuwaat ñoom waa euh, kii yëpp ah rent DKR ñoom Jimbo ñoom Alain ñoom ñëpp Pape saar parce que tamit lu metti woon la Boy ñaar 2 loolu muy wax am na kon defe naa ne autorité tamit nañu gën a bàyyi xel làmb parce que li ci li ci liy ñuul ci soow mi te loolu ba tey du leer ci bopp waa làmb lu tax nga xëy xëy rek arrêté làmb ja te bi nga ko arrêté yow yeneen manifestation yi ci dëkk bi ñu ngi am niñ ko ni ko seeni i borom bëggee yemuñu ca bu ñu nee kaar ya ak tata ak euh, kii lépp maanaam marché yi lépp a ngi dox mais lamb ji daal lañ ne ñoom daal mu waaw arrêté ko daal ci loo xam ne kenn mën leerul ci kenn loolu doy waaral te lu metti la booy ñaar de loolu la xëy di wax yemu ca mu ngi wax tamit digganteem ak tafaatin nee na du question que ni combat ak tafaatin maanaam da cee jëli motivation bi ci tax muy bëri ji ak Balla Gaye nee na loolu taxul waaw parce que daa jàpp ne moom Balla tafa tafaatin la amal combat ñu war a bëri ba pare te ba mu koy jël moo ko jëlal ba mu effectivement defe naa ba muy jël tafa tafaatin combat ba mi muy taxaw hmm? boobu signé contrat ak Balla Gaye numéro 2 kon yaakaar naa ne moom lim li mu wax tamit xel nangu na ko la ko intéressé daal mooy digganteem ak nga xam ne moom moo di ba tafaatin actuellement ba pare Lac 2 tamit di mbër bu dëkk géejawaay yëglikaay bi ñëw na ci moom ak ñetti mbir yoo xam ne bokk na ci moom yu tax daan ko ci làmb jafe lool benn bi bagaar la bi ci des mystique la bi ci des mbër mu défensif la effectivement la de Guiers numéro côté bagaar wax dëgg yàlla ku ne xam na ne lu mu man la ah, mystique tamit ah macha allah war na ko mën a am parce que euh, mbër la te champion la et euh, ñu ko war muy Kaasa ak waa Waalo ak Guédiawaye ah tamit loolu bu amee ci moom tamit du bett kenn côté mystique bi défensif tamit ci un sportif. un athlète dañ koy soxla parce que am na moment yoo xam ne boo mënta défense su ngay ñàkk bu fekkee yow attaque kese kese kese kese nga jàng mais jàngoo nu ñuy défense maanaam loolu des fois mën ngay ñàkk ci ay ñàkk yu doy doy waar mais moom tamit gis nañ ne wala boog man lu ma gis man Babacar def naa moom benn jàngat Lac de Guiers day attaqué de c'est que attaque am dafa am nu mu koy tegee nu mu koy calculer mais souvent saa yu attaqué mbër yomb na koo gañe waaye itam nekkul da nga koy attaqué rek daan ko loolu moom yombul waaw attaqué Lac de Guiers 2 rek jëlee ko fi ah jafe na ci làmb waaw wala boog est-ce que sax gisagu nañ ko te loolu yëpp ay force la yoo xam ne nii ci un athlète dafay am solo koo xam tamit bëri na ak moom Lac de Guiers 2 moom Yékini mu Yékini senior yëglikaay bi ñëw na ci moom mu mel ni moom fi mu nekk nii tamit hmm, le sóoru serse adversaire mu mel ni Yékini senior adversaire la yow Yékini senior nag adversaire am yaa ngi ci làmb ji gaañ wax dëgg yàlla ay adversaire am a ngi fi duñu fi jeex fi xaaj parce que nag mbër la mu nga xam ne dafa wane ay preuve am 15 victoires 6 défaites waaye ku ko def ci làmb nga bokk da cee bokku de kon defe naa ne warul sax wër adversaire muy jafe laa foog te yaakaar may itam mu ngi comme wër adversaire xanaa kay dañ ko wutal mais ay adversaire am a ngi fi ay ay adversaire am duñ fi jeex duñ fi xaaj digganteem ak Sa Thiès làmb la waaw mën nañoo bëree làmb ju neex la am na yenn adversaire yu fi ne yoo xam ne ñu ngi fi rëg-rëg guy gi foofa am na fa place loolu lépp ay làmb la waaw làmb yaa ngi fii du jeex du xaaj te bu làmb yi tasee dina gën a leer ci côté waaw loolu moom lu lu am la hmm? booy fay saison tamit saful suukar saful xorom dara possibilité kese la jot a gagné après ba mu ci jógee gagné waatul dara loolu yëgle kaay baa xëy tey wax nu ko bu nu demee les arènes wër ndombo la nu wat wan nu Modou Lo Gaston Mbengue ñu taxaw di sourire mel ni ki Gaston daa wër ndoom moom Modou Lo yëglikaay bi nag moo ko wax ndax nee na adversaire yi mu waroon a bëreel yépp Gaston jox na leen ay avance ñu ngi ci contrat wu Gaston ah waaw waaw mooy lamb mais terewul Modou tam yaakaar naa su bëgg na ma beneen avance da koy am loolu moom yaakaar naa ko parce que itam Modou nekkul marchandise moo xam ne mu naqaree jaay la ci lamb Modou Lo ah, <laughs> du marchandise mu ñu yàlla yàlla ci lamb jaay ko fi gën a yomb loolu moom leer na ma xanaa kay dafa tombe kani bëggu ko moom waaye bu ko bëggoon xalaat naa ne bu bëggoon un adversaire ci adversaire yooyu Gaston jox avance dina ci am léegi adversaire parce que li ma leen wax rek moom itam liggéey na lu tax ci làmb tey mu Modou Lo jaay ko jafewul waaw c'est le roi des arènes te itam am na lu bëri lu mu wane te itam code de popularité am ci làmb foo ko natt weesu na ko moom Modou xarañ Lo Balla ak ak ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier ñoom ñaar yëglikaay bi ne na la moo ay ci mag ñi waaye bomb moo ay ci xale yi loolu nag bu ko yëglikaay bi waxee parce que Balla daan na ay baabooy daan na ñoom Tapha Guèye daan Yékini te ñoo ñëpp ku ne xam ne mu leen di daan ñoo ko mag ci làmb ëpp ëpp ko expérience mais fexe na ba daan leen kon moo tax yëglikaay bi ñëw ci loolu waaye boobu rajo tamit li tax yëglikaay bi ñëw ci moom ci côté am ça veut moo ay ci xale yi parce que dafa fekk ñaari xale yoo xam ne ci seen génération wax dëgg yàlla mel ci ni ñoom jafe na muy Balla ak Modou Lo mu daan leen kon moom tamit ku aay ci xale yi la te li ko yóbbee loolu moom Bombardier tamit dafa nekk un sportif de haut niveau bu nga xam ne hygiène ba dafa baax macha allah loolu mooy li am. ba tey bu nu continuer Isabelle Sambou ak ki nga xam ne ni ah Isabelle ak euh, Isabelle Sambou la waa ak Adama Diatta yëglikaay bi ne na roi bi ak reine bi ñan ñoo jël seeni i place ginnaaw retraite parce que nag ci retraite bu ñu ko deful tamit est-ce wuñ sax ñu leen di doon. loolu la les ñu formé waat yeneen xale rek parce que comme dañ dañ leen a formé woon nañu formé waat yeneen xale rek parce que loolu moo fi a nekk waaw waaw parce que tamit affaire bi daa war a continuer war a warul taxaw yëglikaay bi tamit euh, ñëw na waaw di di di di di ba tey ci waa waa affaire Yékini Junior ah Yékini Junior mu ngay laaj palaasam ci 10 ans yi yi nga xam ne moom la ñu génn cinq meilleurs combats parce que les arènes moo ko defoon te boole koon ci xam naa combat am combat ak Modou Anta itam nga gis combat bu ko dàq dina jafe lool ci 10 ans yi ñu kiin moom Modou Anta moom Yékini Senior combat gënu kon ko rëy waaw mu ngi noonu ngeen di gis noonu yëglikaay bi ñëw na ci ba tey bu ñu continuer yëglikaay bi ñëwal nañu ci tamit ci par rapport ak association des jeunes lutteurs bi mobile jiite hmm? ak ñoom Kona ñoom Agogo ñoom moori Cargo ñoom ñëpp demoon nañu ñoom Ondu la fu ànd fekki Tafa Gueye këram jaale ji ko bañ ko jaale itam yemuñu ca def nañ ko mu seen président d'honneur loolu la xale ya def ah muy lu am solo waaw loolu itam am na solo ndax Tapha Gueye yaakaar naa itam comme li may wax rek personnalité la ci làmb te itam euh, loolu ñu def dem jaale ji ko rafet na loolu ndax ñoom ay xale la ñu nga xam ne am nañ avenir u làmb ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen wax ne seen association boobu rek li ci am solo daal mooy lu ci mën a xew mooy ah ànd leen te yàlla tax rek ànd fa si ne defa euh, jariñante ànd defendre intérêt général su loolu amee rek jàmm rek ngeen ciy jëlee fu koy tëjee nag mooy li simple bi ngoon def fay ren saison doxul ah parce que boo xoolee benn final la am benn galaare ci gagné ah, am ci six cent vingt mille francs ah yëglikaay bi moo xëy tey wax ñu ko muy xale boo xam tamit li simple bi mu ngi ci wane boppam mais ren xam naa ne affaire yi dese naa dox ci moom loolu nag mooy li simple waaw loolu mooy làmb sax laay wax kon daal tey jii loolu moo fi ñëwoon ci yëglikaay di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen di ballu ñëpp ak di wax que ni Sénégal fi yàlla def jàmm hmm. di nuyu ñëpp ñuy suivre waaye tamit di wax mention spéciale ñi nga xam ne euh, Arena Hebdo dañ koy topp chaque alterné arena hebdo nag chaque altine dinañ fi indi ñu bokk ci làmb ñu waxtaane làmb yaa ngi dégg ca la koy yokk ak la koy tax mu jëm ci kanam xool itam la koy yàq ñu jëm ca wax pour ñu jëm ko moytu loolu moo waral arena hebdo jóg di émission boo xam ne tamit làmb kese ngeen fii amee euh, démb defe naa ne ku ne gis na bi fi jaaroon neex na trop macha allah waaye daw na yaram tamit ndax rongoñ tuuroo na fi ndax ku ne gis na booy dakaar wax na ba rongoñam tuuru te yooyu yëpp li ko indi mooy maanaam yërmande yàlla nañu yàlla defal jàmm dimbali ñu te itam prix yu seer yi ñu gis ci dëkk bi fan yi prix yëpp seer état bi encore une fois loolu war ngeen ñoo wax lan la lu ko waral waaye tamit balaa may tëj am na koo xam ne faw ma taxaw ci kaawam muy Siteu Siteu du meeru jàmm gën déedéet na wuñ ko fa meer de Siteu du ministre du président de la république du gouverneur te Siteu moom mbër mi dëkk jàmm gën ah moom moo dem ànd ak jël ci alalam ku ko mën a dimbali mu jënd ay moto pompe lu baree baree bare ci ay moto pompe teg ko ca quartier boobu ak la ko wër ngir ñuy manque ndox ma te mbërum làmb la parce que li tax ma ne mbërum làmb mooy dafa am ñoo xam dafa dafa am na ñuy traité mbër yi te encore une fois mbër ay exemple lañ ay noble lañ mais Siteu mention spéciale geste boobu nga def rafet na trop man mi bi waroon naa ñëw keroog couvrir affaire ba mais yàllaa ko sottalul ndax ñu ngi doon coordonné pour mu war ko mais nag comme yoon olof ne ne bu yoon jeexul waaxusul di jeex mais lool nga def daal acte bu rëy la te itam defe naa ne jëf yooyu dafay am solo ndax Siteu wax dëgg yàlla nekk na ku nga xam ne ku ñu war a bàyyi xel ndax saa buy wax da ngay xam ne kii li muy wax dëgg la ci moom te itam nit ne olof olof ne na nit waxul na mu mel mi na mu jëf la mel la mu doon wax démb di ko défendre yemalewu ko ci làmb ci jeunes yi rawatina jàmm gën nga mu dëkk muy quartier populaire wane na ko fa ba mbënd ñëwee taxaw ah moom Siteu def na sest ut na ay moto pomp ànd ak ay nitam jox ko waa koñ ba ñu installé ko di manque ndox ma di ko tuuri ngir dimbali nit ñi kon ñu ne ci mbënd mi yëpp ñu ngi leen di massaw mais c'est daal acte bi nga def man Babacar day ak ku ko rafetlu laa ndax nag olof ne na dëkk ci dëkk bi waxuñu ko waaye dëkk ci dëkk bi ba pare tey defar dëkk bi loolu la ñuy wax kon mention spéciale à Siteu tey sax idée bi Siteu laa ko may nag ndax geste boobu mu def bari ki démb